wallaahi man saa yu ma jógee tukki Europe di ñëw ànd ak i tubaab bu may dugg ci réew mi sama xol day jeex dama ne mais xoolal ñii balaa ngay dem seen dëkk li ñuy daj. Mhm. ñoom bu ñu ñëw suñ dëkk dañuy mel ni kuy dem ci tool ya. Mhm. wala marché bi dara du xew daal. waaw dañuy ñëw rek waaxu dem. Mhm. donc loolu dafa war a jeex ak yeneen ak yeneen ak yeneen. am na solo Imaam ñu jaajëfal la euh, ci euh, euh, bu baax a baax contribution bi nga xam ne amal nga ko ak sa jàngat ci <laughs> kii ne la cinquante di raket sa. <laughs> <laughs> imam sa visa bi alors euh, ci ba tey ci visite boobu. Euh, damaa jooyal ay téeméeri téeméeri nit. mais bien sûr li ñuy foofu ci cinquante mille. ëpp léegi sax ëpp na ëpp na cinquante mille ëpp na ko kay. te duñ la wax dara nag ah. du yoon mu ngi noonu je pense que ci visite boobee euh, ab communiqué la gis nii léegi sax ñu def ci logo fédération nationale des enseignants libéraux PDS donc ñoom ci seen ab communiqué li saa doon wax léegi la ñu dëggal. Mm-hmm. Le président de la République s'est également prononcé sur l'absence du PDS du gouvernement alors que le Parti libéral avait appelé à voter pour lui. Répondant à Maïssa Touré, mhm. euh, le coordinateur de la Fédération PDS de France, le président de la République dira j'ai appelé Karim Wade avant la formation du gouvernement pour en discuter avec lui mais il m'a répondu que le soutien du PDS était sans condition. waaw yeggul foofu nag. dalee na yabal ne noonu la ñu ko xamalee communiqué baa ngi nii loolu ñu wax lu dëgg. waaw loolu ñu wax dafa wax ne leen. na ko laaj. da koo mhm. boole ne ko na ko laaj Karim Wade. léegi nag moom bu laajee Karim Wade xaj na Karim Wade wax leen lii bu ñu wax loo. waaw saa yi dama ne communiqué bi ñu wax ne loolu la Diomaye wax waxuñ dëgg. neewu leen daf leen a wax ne leen nangam. Mhm. li leen président Diomaye wax ne. woo na ab woo na mais Karim Wade leen li nga xam ni moom mooy euh, ñëw jàppale bi c'était sans condition. loolu dëgg. Mm. président Diomaye yeggut foofu. waaw yow moo tax ma ne la moo tax ma parce que dama gis communiqué bi gis ni yow wax nga ko léegi. wax naa ko léegi waaw te rencontre bi mu ngi am le vendredi. ma maa la ko wax. ni ki démb. démb la ci résidence parisienne. maa la ko wax de l'ambassadeur di Sénégal. dix personnes ñoo wax onze sax lañ. waaw Ablaye Tine moo bàyyi kàddoom. jox ko ku ñuy wax. mu mel ni sax waaw wax na fa ci appel à candidature pour certains postes de direction. waaw waaw wax daal di bàyyi kii moo tax ma sant. Euh, kon wax dañ ko déformé Ablaye dañ ko déformé daf leen a wax ne leen bu ngeen demee ca seen kilifa ngeen laaj ko lu tax. Mm. fa la yam. Mm-hmm. léegi nag ñoom bu ñu laajee seen kilifa mu wax leen nangam laa nañ wax ne Karim Wade bi ñu ko laajee nangam mais li ñuy wax mm-hmm. président Diomaye waxu ko fa nañuy wax dëgg. voilà d'accord aca am na solo ba tey ñu jëm ci yeneen i euh, sujet yi nga xam ne moom lañu waxtaanee waxtu bi mu ngi ñuy bëgg a tënk waaye rapidement rek euh, ku nekk deux minutes ñu ñëw ci sujet yi nga xam ne moo ci toftalu euh, bokk na ci li nga xam ne moom moo di denrée alimentaire yi nit ñi nag dañu jàpp ne sax nag wàññi gi du wàññiku am am am noonu ñii di jàpp ne nag ba xam bés bi lu rayal la ci yenn prix yi nga xam ne affiché nañu ko wala sax benn benn illusion lañu jox sénégalais pour ñu xaw cee jafandu alors Falaay euh, Moustapha ci yow laay ñëw directement euh, ci wàññi gi ban jàngat nga ci am. xii nga xam ne wàññi waaw wàññi bi de c'est une très bonne chose. parce que mhm. ñetti dërëm lañ demaare woon léegi dem nañ ba mu doon juróomi dërëm. Mhm. Euh, je pense que tey mënoon na bañ am. Mhm. parce que ñëpp xam nañ ne ñoom budget bi du ñoom ñoo ko voté woon. daf leen a dab. donc lépp lu ñu ci def rek bëgg nañ dégg waaw góor mhm. naa nag comme ni ko imaam doon waxee waaw ah. góor boo koy waxee midi mhm. du wàccal waaye gënal góorgóorlu la kon dañ leen di wax ga waaw góor pour ñu gën a góorgóorlu gën a mhm. am na solo ça euh, wàññi gi nan nga ko jàngatee ndax ni ki démb rek amoon na ab euh, réunion boo xamante ni amal nañu ko ba naa fasal ay prix euh, ñu bari nag jàpp ni wàññi gi tax naa demee noonu bon dama déglu Momar Ndao keroog mu ah, yàkkamti ba ne dañu violé sax loi bi te teeyut te fekk gars yi dañu annoncé. ne bu ñu yeggee ci nàngam ak nangam beneen bi mooy buruxlu gi moom mooy mën a ñàkk parce que mënumaa gis njiitu association consommateur. boo xam ne ay jamono bi fi Macky di nekk amoo jom yi résister dangaa taxaw boo bu bu ñu waxee Momar Ndao sax dafa mel ni ay SDE lay gën a défendre rek Senelec tey ñu yegg si fii maanaam jom ji ngay wane nii ak fulla jeeg fugg bi di wane fu ci nekk nga wax teebu bi fi Macky nekkee nga wane fii lañ ko fi jox du wàllu loi lu mu ci def dara defu ko ci. ba pare bëgg ñoo fàtt gis nga buruxlu gii su naree buruxlu. da nga jàpp ndey dama ne tamit nag. SOS consommateur bu met ma soxna kan. ñu ci war a jox benn consommatrice wala Jean Pierre Senghor wala ñooñu laa gën a d' accord bu ko ci kenn jiital ci dara mën nañoo déglu xalaatam nag. Mm-hmm. parce que xalaati réew mi yëpp lañ war a déglu. waaye bu ñu dégloo ba pare nañ jëfee ci loo xam ne ki waaye bu amee lenn lu ñu war a taxawee wala nàngam ak nangam. nañ ko def met ma soxna kan gor si. wala ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk. wane na ay limitam na may nit ñi jàmm. kenn violé fi loi ñu ngi nii ñu ngi doon wax ñetti dërëm wala nangam nangam. teggi ne man bokk naa ci ñi amoon xalaat ba parce que dama ne. mais diw diwlin bi tamit huile de bi lañ wàññi de ñu ñoom Aziz ak ñoom ñooñu diw diwlin bi wàññi ñooy de waaye mooy ñuy jaay ci Auchan yeeg grande surface huile de palme bu bi lañu wàññi luxe moom kenn mhm. ko wàññi mhm. luxe huile de luxe wala eau de luxe wala mhm. boisson de luxe walla ceeb de luxe loolu da nga koy bàyyee ña koy jënd am nañ <coughs> boo delloo Abdou Diouf mii ñuy wax rek. ci ci jamonoom lañ commencé loolu. xanaa xamoo ne dafa am daara yoo xam ne tolloowuñu woon ni ñu jëlee <coughs> mbir mi mu nekk yëpp. tolloo comme tey ñu def ko 18 pour cent wala benn kii xam nga dafa am yoo xam ne 2 pour cent lañ ci doon yokk. Mhm. lu mel ni sàngara ñu yokk ci 20 pour cent. ak yenn produit de luxe yi yi ci des ñu def ko ay 8 pour cent comme ba dem na ba ci meewu xale yi wala yu demee noonu noonu lañ doon defee Sénégal lépp yamut. Mhm. mais ci Abdou Diouf lañ fexe ba wañ loxoom xaj na nag président Diomaye su gisee Abdou Diouf dana ko wan xaj na mhm. foofu mu lajja bañ bañ indi fii Sénégal. loolu moo ci nekk mais kuy xaar produit de luxe booy subventionné gis nga man. loolu du wàññi sax def nii du wàññi. nan la dànk njëg la dànk. dànk hmm? mooy subventionné gis nga boo subventionné wa xam nga loo wàññi wàññi woo ko de maanaam kiy jënd nga nga nga fayal. léegi dafa mel ni nga ubbi sa fenêtre rek sànni xaalis bi keneen jël. Hmm. maanaam yaa ngay dolli xaalis baykat ba ca Pakistan wala hmm. ca ca Siam. xam lu ma gëm wàññi bi njëkk a def. 120 milliards nga def ko ci mbay mi. maa ngi ziar sama benn xarit bu tudd Pape nekk ca Thiès. te dëkk ci département Bambey. nee na ma carré daaw li ci tane lañ jot muy ab carré 30 kilos. Hmm. yeneen at yaa gënoon a yiis daaw gu yàggut gi hmm. ma ne ko ren lu ngeen jot mu ne ma 200 kilos lañ jot ak leneen ak leneen mu ne ma foo santal ma kii bi te du moom rek ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne hmm. nee na ma saa ko engrais bi doon jar ñu ko doon jënde juróomi junni dafa demoon bu mujj gi jafee gis ba juróom benn junni lañ ko doon jënde <coughs> tey bu ñu wàccee loolu ba mu nekk 6000 man wàññi boobu laa gëm ne mooy wàññi. Mm-hmm. ci engrais bi. waaw ak mbay mi ak mm-hmm. yooyu. Mm-hmm. Abdou Diouf mii ñuy wax Senghor pourtant ak loo ko mën a wax andi woon na fi ay machine arara golo gi ak yeneen ak yeneen <laughs> mais Abdou Diouf moom ci kiyam la la loolu dakke tey li ñu war a def mooy bay la war a dem ba tey culture laa gëm ko tracteur sax nit ñi di ko bokk wala muy dem feneen pour man dafa am na ay genre type de moto yoo xam ne mhm. un million lay jar wala un million nangam nga xam ne bu boobaa nañ ko wàññi ba nga xam ne baykat bi dana ko jënde te ministre subventionné leen sax voilà man mhm. subvention boobu mhm. laa gën a gëm suñu bayee parce que am nañ possibilité jëndal leen ko ñu koy dagg sax fay di fay di fay maa la ko bayoon kilo ceeb war a jar trois cent ñu jaayee ko téeméer sax laa wax te fekk baykatu Sénégal lañ ko bay mhm. gis nga téeméeru baykat boobu mu génn ci baykat bi dana dem consommer ci tailleur bi tailleur bi dem defar lu ji lal mhm. kee daal dem jënd ji ceeb bi tamit ceebu euh, mbay mi lañu wàññi waaw moom mhm. nekkul dañu woote ñoom pour à ce ñi nga xam ne jënd bi jënd yi ñuy importé dafa cher ci ñoom ñu jënd yi fi ne parce que wàññi nañu ko bien sûr est-ce que nekkul ci loolu la woote ci loolu lañu kii am na sax lu ñuy wàññi lu ñuy importé mais damaa wax ne solution bi mooy 120 milliards a ci mbay mi ñooñu boo leen jot tegee bët fii ak at ñaari at buntu feeñ bu ko defee li ñuy bay yëpp même bu seeree xaalis bi fi lay desaat man loolu laa gëm parce que bu fekkee ne da ngaa ñëw wàññi jumtukaay yi mhm. man mhm. su ma bayee man danaa jaay Moustapha Moustapha bu jëndee dana ñawal kii kii consommé mhm. kii bu jëndee dana ñëw defar loola nangam mool bii jënd ci géej da nga mën a jënd jën bu ko defee mu doon li olof di wax am am waaw day ci kii dem ci kee dem ci kee mu daal di doon loo xam ne dafay doon. Mhm. ñu man suñ bopp. Ah, moom suñ bopp mais bu dee lu ñëw ñu dànk ko. Mhm. ñaata milliards moom la ñuy génn di ko importer di ko sànni. bari na na de ñuy fay ci dette. Mhm. xam nga ñaata la deux mille milliards. mille trente mille trente wala wala wala wala mille cent mille mille vingt milliards wala nangam. daanaka ñu ngi koy def ci ay salaire six cent rek ne serait-ce que électricité rek liñ ciy def. 600 mhm. ak ndox ak yu demee noonu ñu ngi ciy def 600 milliards yu teg nangam. Mhm. nga xam ne li ñuy defaree Sénégal matul sax 2000 milliards. Mhm. dañu war a fexe tabax réew mi man loolu laa gëm. mais wàññi moom. wax dëgg yàlla am li Thierno Bocoum wax laay wax. mooy bu doon dërëm sax. dërëm bu dugg ci poos walaay ci euh, poosu góorgóorlu bi moo ko gënal bu ci bu ci yokk bu ci njëkk loolu mooy dëgg. dëgg la am na solo merci beaucoup ça euh, Imaam Imaam moom xam naa ne moom moom dramé dramé la moom wàññi gi dina ko arrangé trop euh, lan nga ñuy wax ci wàññi gi nga xam ne def nañu ko ci mburu mi euh, def ko ci li nga xam ne moom moo di diwlin bi ak ceeb bi même bu fekkee huile de palme bi la du huile bi ñuy importé ceeb bi aussi ceeb mbay mi la du ceeb bi nga xam ne moom la ñuy man dañ maa bett quoi. <coughs> kat wàññi wàññi dugub ji dund bi dañ maa bett. ah oui wallaahi dañ maa bett man xalaatuma woon ne dinañ wàññi de. Hmm. parce que man man man pour man wàññi du maanaam peuple bu ñor bu yeewu. Hmm. du toog sax di xaar ñu naan ko dañuy wàññi dund bi. Hmm. te bayoo dund. waaw loolu moom di ko wax sax mooy nit ko xamul rek mooy débattre ci loolu. parce que. loolu moo waraloon kon bi Ousmane Sonko ne woon day wàññi ñu bari taxaw ne wàññi bi mënul ne. parce que loolu mooy dëgg. mëntu ne mhm. wartu ne. parce yow man damay poser question dama naan waa ñii fan lañ man a fan lañ jaar ba wàññi lii. Mhm. ñii de man jaaxal nañ ma. Mhm. seen yéen a rëy na daal. mais man xaaruma ko woon xam kañ laa doon xaar. <laughs> wallaay dama doon ne xam naa bu ñu bayee ren nii comme jiwu am na engrais bi am na. buñ béyee feeg ñaari at dinañ commencé di wàññi dund bi parce que ñu ngi mbay maa commencé di mm-hmm. mais lii ñu def wax dëgg yàlla jàmbaar lañu. surtout euh, jàmbaar lañu. Mm-hmm. jàmbaar dëgg dëgg dëgg dëgg. Mm-hmm. mais euh, Sénégal moom soxna si. yal nañu yàlla dimbale li fi nekk ci àll. waaw kenn bayu ko. bilaay bari na loolu yëpp bu ñu bayee genn wàll gi rek. waxuma la Sénégal mais Mali sax ak yeneen dëkk yi dinañ leen may dund. laay kon ñëpp nañu encouragé nañ ñu dem bay ñu yombal mbay mi. loolu ci la ñuy dem ba nga xam ne. kenn dootuñu mën a jaay dara. Mhm. parce que ay milliards yi ñuy jël di ko jox pakistanais yi di ko jox. chinois yi pour lan. te àll baa ngi ne yàmbalang. Mhm. ndaw ñaa ngi fi war a liggéey. Mhm. Hmm? non man daal dëgg-dëgg seen wàññi yi moom man nag xam nga lan laa bëgg ñu wàññi. waaw. dëggantaan. <laughs> lan. mooy loyer. loyer ah, bi si la location bi. location beeg essence bi parce dama naan Macky Sall. bokk na ci lim lim lor ñi mu gën a lor. ñiy loyer la gën a lor.